non non c'est pas que dañu jàpp ni bokku ci mais xam nga quand on parle d'élection libre surtout inclusive parce que côté boobu inclusivité bi ngay indi mooy que ñëpp bokk ñi nga xamante ni dañu utiliser woon comme on le dit souvent hein, euh, la justice pour éliminer leen ñu delloo si leen ci ñooñu am na ñaar ñu dellu si dont le président Khalifa Sall et le président Karim mais il reste le président Ousmane Sonko et peut-être d'autres yoo xamante ni xamuñu leen ñoo xamante ni bëgg nañu briguer la magistrature suprême. Ousmane Sonko n'est pas concerné par ces articles-là. oui atten attention cest dire que en réalité ku ci nekk ak na mu génne ak nañ ko bëgg a génnee moo tax ma ni si on parle de l'inclusivité ba léegi nii amuñu cette inclusivité effectivement des na voilà donc euh, bien sûr on salue ñaar ñooñu ñu dugal Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on salue ces, ces, au niveau de la Constitution. Mm-hmm. On aurait demandé, en tout cas, on avait demandé plus la suppression de l'article 57 qui amène la notion d'électeur et de. Euh, électeurs et, parce que ce, ce, ce, ce, mm-hmm. ci article 57 moom moo indi problème yu bëri yu ñu am tey ci ci loolu waaw donc mais inclusivité boobu ñu doon demandé ba léegi amaguñ ko. Mhm. bien sur nag on salue cette décision d'avoir euh, en tout cas deux qui étaient sortis qui sont revenus dans le jeu.